Mame Balla ñoom a attention Mame Balla kaawo na Tapha Boy Bambara dóor na ko Tapha Boy Bambara Mame Balla ndax du ko dóor mu daanu Tapha Boy Bambara Mame Balla ñoom ñaar Tapha Boy Bambara Tapha Boy Bambara jël ko tegal ko sees daan ko jël dafa leer na Boy Bambara daan na Mame eh! Boy Bambara Moussa Dioum doo Filikis ñoom ñaar xeex nañu ñoom Moussa Dioum Filikis dugg na ko ba jeex dugg na ko ba jeex ko ba jeex mboota ci topp maa la wax lii. oh waaw waaw waaw waaw. waaw dóor na ko dóor na ko dóor bu metti waaye Moussa Dioum de def na wàllam. te léegi lamb xaalis. lamb na xaalis léegi ñoom ñaar jàppante nañu Garga 2 Tyson 2 war na ko nombo Tyson 2 war na nombo Garga 2 ñoom ñaar ci suuf. Garga 2 bañ na Tyson 2 war na ko noonu ma yenn na ko ba ci kaw dóor na ci suuf Garga 2 def na trois appui ñoom ñaar Garga 2 bëgg na cee waaye Tyson 2 da ngaa dajeeg daan na Garga 2. daan na ko daan na ko daan na ko. daan na ko décision la ko daane mbër day am décision. dafa décidé daan ko ah ànd ak dal daan ko bëri bëri bu daan ko. ku xeexul doo daan George George raat na ah George si la ilaha illa allah na eh, eh yow lii lan la yow nees tooñ na nan nees Sa Thiès Sa bët nees bañ na arbitre bi lamb ji gaaw na na HBK Sa Thiès file na nees file na ko ñoom ñaar Sa Thiès wër na ko ndombo